président président Ousmane Sonko la procession continue nit ñaa ngi ci seen kaw terrasse yi ah des familles famille yëpp ay génn taxaw ci kaw terrasse yi pour séntu ko président nee na nañu xaw a accélérer tuuti ngi noonu mi ngi noonu mi on avance on avance on avance on accélère un on accélère un peu la woon visite la woon visite de solidarité mi ngi noonu président di fàttali c'était une visite c'était une visite une visite de courtoisie et de solidarité visite la boo xamante ne président Ousmane Sonko da ko ñëwoon def si Walfadjiri Walfadjiri télé askan bi Walfadjiri la voix de sa de manière anticonstitutionnelle bi nga xamante ne moo di CNRA ñu coupé seen signal ndax ñu ngi doon wane dëgg ni ngi doon wane ñu doon génn les événements rien que les événements les faits et rien que les faits bi nga xamante ne moo amoon Mbacké la marche triomphale à Mbacké moom la Walfadjri doon wane Babacar Diagne à la tête du CNRA ñoom ñoo jël décision couper le signal président Ousmane Sonko koo xamante ne c'est c'est na adepte de la liberté d'expression c'est un adepte de tout ce qui est liberté exceptionnelle yi nga xamante ne constitution moo ci may président Ousmane mi ngi ñëw di nuyu mi ngi nuyoo maire bi nga xamante ne dafa daw ba sonn ndeysaan dafa daw ba sonn ñëw fekk si ko président génne na bopp bi mi ngi saafonte ak moom ndeysaan lii daw na yaram lii daw na yaram président teg bi mi ngi saafonte ak moom mi ngi saafonte ak moom. président Ousmane Sonko maire bi daa daw ba sonn daa ba sonn ñëw fekk si président Ousmane Sonko mi ngi saafonteeg bëgg dafa fort xoolal visage bi xoolal expression bi xoolal déglu bi président Ousmane Sonko mi ngi fi exceptionnel exceptionnel suñu beneen yaay ñëw na suñu beneen yaay ñëw na président mi koy nuyu président mi koy nuyu président mi koy nuyu président mi koy nuyu président mi koy nuyu xoolal ma ñaari meer yi xoolal ma suñu ñaari yaay yi xoolal ma suñu ñaari yaay yi ndeysaan ñu ngi koy laaj biir ñu ngi moom. mi ngi noonu gis la marée humaine qui se forme devant elle se forme devant nit ñaa ngi ñëw au cœur de Dakar. Le président Ousmane Sonko était venu faire une visite de courtoisie et de solidarité, d'exprimer surtout sa solidarité par rapport à, à l'injustice qu'est en train de subir le premier média au Sénégal, le média du peuple, le groupe Walfadjiri, qui illégalement et de manière injuste et de manière anticonstitutionnelle même a été privé de son signal par un certain Babacar Diagne, mais aussi par euh, le CNRA qui a couper le signal de manière illégale et sur les ordres de ce gouvernement. Le président Ousmane Sonko est venu exprimer euh, toute son affection, exprimer toute sa solidarité, exprimer ce, dont il veut montrer aux Sénégalais la liberté d'expression. Le président Ousmane Sonko est encore sorti. Exceptionnel. L'homme du peuple. L'homme du peuple. L'espoir. Baïfa Baye Fallou askan bi Baye Fallou askan bi Baye Fallou askan bi joxati nañ ko adiye joxati nañ ko adiye xoolal mi ngi nuyoo góor gi mi ngi nuyoo góor gi mi ngi wax ak góor gi mooy président Sonko président Ousmane Sonko président na góor gi na góor nuyu na góor gi président Ousmane Sonko président Ousmane Sonko gaa yi koy jox adiya yi gaa yi ñu buuxante pour nuyu ko gaa yi ñu buuxante pour nuyu ko exceptionnel exceptionnel exceptionnel extraordinaire